waa salaamaaleykum waa Sénégal donc fii ñu nekk nii tëngéej la ñun ay doomu tëngéej lañ am lu ñu metti lool lool lool lool parce que ñëpp gis nañ ni temps yi am na benn maladie bu bees boo xam ni génn na si géej gi jox nit ñi ay góom ñu dajale leen indi leen fii stade Ngalandou Diouf tey jii ñooñu nga xam ne tey dañ leen indi stade Ngalandou Diouf man dama jàpp ni xajoon nañ ci yenn hôpitaux yi parce que tëngéej ren dafa war a def compétition boo xam ni dafay représenter Sénégal ci compétition africaine bi te ci stade bi la ñuy donc nag autorité yi dëgg la gouverneur joxe na digal pour ñu leen bu ñu sañoon yóbbu leen ci ay stades yoo xam ne c'est des stades fermés yoo xam ni amul euh, équipe boo xam fay entraîné léegi nag bu loolu weesoo fii nii ci tënge sortie 10 booy ci autoroute à bi boo duggee rek sortie 10 bi soo xoolee kenn gis nañu yëpp. ay mbalit la yoo xam ne jógewul tëngee kenn xamul mbalit bi fan la jógee dafa mel ni tëngee amul ay autorité wala dafa amul ay maire wala dafa amul ay nit yoo xam ne am nañ fulla ak fayda pour mën a xeex phénomène bii parce que li ngeen gis nii muy tàkk ni di saxaar kenn xamul lan la benn produit la boo xam ne ci usines yi lay jógee ñu ñëw sotti ko fii temps yi gis nañ feebar yi ni mu bëree si dëkk bi may interpeller le président Macky Sall di ko ñaan ni ko na wax ak le gouverneur bi nga xam ne moo ëmb Dakar yëpp. waaw may wax nag ni président Macky Sall gis nañ liggéey bu rafet bu mu liggéey Diamniadio mais nañ xam ni Tëngéej moo jiitu jam Diamniadio mënuñu am lu baax su baaxee ñu ne jam ñaajo la su bonee ñu indi ko Tëngéej Tëngéej c'est une grande ville Tëngéej fait partie des premières communes Sénégal il faut que am ñu am ay maire am poids yu am fulla yu am fayda mais lii c'est pas normal léegi nag suñ ko arrêté wul. ñun dinañ génne waa Tëngéej yëpp ñu def marche boo xam ne marche bu mag a mag a mag a mag lay doon parce que lii duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg du ñu nangu Tëngéej nekk commune Dakar Saint-Louis Rufisque Gorée ñoo fi njëkk a nekk beneen commune di jël ay malitam ko sotti fii bu fekkee ñi ñi fi nekk amuñu fulla amuñu fayda ñun ñi fi dëkk